virgule 37 euh, 37 waaw waaw Khalifa Sall bi ñu koy wax 3 virgule 6 mhm. nee naa bëri na ci moom mhm. fii laa ko waxee woon wax nga ko waaw ñu naan ma yow da nga xeeb non da nga ne woon 2 sax bëri na ci moom 2 pour na ci moom mhm. mu ñëw am 1 euh, virgule kon kon xam nga 2 mënu ko dégg quoi pour man mais lu waral loolu alors que ñu mais dama xam euh, électorat Sénégal dama xam xam nga c'est-à-dire nit ñi politiciens yi dañ leen di bàyyi ñuy wax rek du ñoom ñooy décider. Mhm. askan bi mooy décider. mais bii da koo wone largement askan bi bés bu ayee. Mhm. Ah, ku ci nekk dana la tappal sa grade. dana la jox loo yelloo élection bi xiif ah? bi xiif bi ñu xiifoon ak xaar bi ñu nekkoon di xaar. a xaar dañ leen a xaar. Mhm. te te mënoon mënoon mënoon na pire parce que ñun parenthèse bu mag man dama bëgg dama bëgg hors sujet nag. ma delloo si su ma su ma su ma naree saaraan. waaw demal rek. dañu xeexoon. pour le code électoral consensuel Si on a. un point ci suñu ay points de revendication l'abaissement de l'âge électoral à 18 ans parce que bu njëkk 21 ans la ñu Nous consacrons ñu ko code consensuel bu 92 Moi, fi nekk ba léegi léegi à 18 ans la voter. mais Macky Sall dafa ñëw xajamal loolu parce que xale yi ah, ñu ci bëri seen carte dañ di bind ñu mënuñu Donc, kon les enfants de 18 ans yëpp bu ñu voté mhm. jëm kaw de 18 ans jëm ko bu 18 à 23. kon ñi am 2 pour cent yi. zéro la am. kon fan la affaire yi jaar ba Bassirou am résultat yi. ay 79 pour cent kon lay am. Mhm. bu xale voté woon. kon dina dem ba dix pour cent. kon moom nu def ba am résultat yi. kan ci malgré que jeunesse bi ñu ci mais c'est parce que ñëpp moom la ñu voté. parti au pouvoir dafay am doole dafay am dafay am ay intérêt ñuy sauvegarder. ay immeuble yo xam dañuy bañ mu rëcc len ay parking yo xam dañuy bañ ñu nanguko ay milliards yo xam dañuy bañ ñu nanguko ay soufi soufi suuf yo xam dañuy am c'est un groupement d'intérêt électoral électoral eux bi da koy remplacer par électoral waaw donc ñom dinañ def tout pour maintenir loolu mo waral ñom ñu am sax 32 bi nga ma bête mm-hmm. donc plébiscite bi euh, élection bi c'était entre nguur gi mm-hmm projet bi mhm. entre le système et mhm. l'antisystème loolu kese la moo nous ñeneen ñep compté wuñu donc mais li ci bax moy c'est, si ci sujet bi mhm. grade électoral parce que Dakar c'est un problème gis nga coow Khalifa Sall ak euh, taxawu Dakar par rapport ak euh, euh, Pastef yow ñu jox la treize députés yóbbaale la nga ni yow kenn wu la ya gagnel sa bop parce que yow 2009 a gagné au Dakar. comme si benn xale gënu fi xamadi kenn. waaw di tëkku. Mhm. di sànni xeer. Mhm. yow boo demee feneen kay boo beddee ko beddee ko rek tu es pas obligé ngay ngay song sa allié demb. Mhm. wala di xas sa doomu ndeyu démb. bay def ay gisaane kenn mënu fi gagné premier tour élection du am ngay Yo, yooyu yëpp gis nañ ko fi mais tey jii. askanu Sénégal. bi nga xam ni bésam ñëw na moo tax ñu war di respecter les calendriers républicains. surtout parce que ñun loolu rek la ñu am.

ak international sax. mais nag nañu waxante dëkk la door euh, euh, kii nga xam ne mooy Bassirou Diomaye Faye ameel nañ dëkk njukkal waa diaspora de. non euh, Sénégal yëpp. man mii sax ameel naa njukkal waa diaspora. Mhm. parce que ñun ci suñu liggéey sax bu ci waa diaspora jàppul du du du dem. Mhm. xam nga moyen d' investigation et de surveillance yooyu nga xam ne moom la ñuy teg yooyu tout tout le temps diaspora bi moo ci moo ciy jàpp même ba ci mobilisation bu amee manifestation place de l'Obélisque Amna sam ben France dam koy la a tudd. moom waa la xolal day réquisitionner ay bus jox len ay moyens pour ñu participer ci manifestation bi fi amna euh, ku États-Unis ko xamni wa pikin la. day mobiliser wa pikin ñu la soutenir. Pastef buy appel de fonds nous la liñ mention spéciale aux côtés de la jeunesse c'est les deux piliers que nga ñoo waral li am ni moo tax jeunes yi ñu war leen delloo seen droit de vote je crois que très rapidement bu ñuy réformer euh, le code électoral delloo ko na mu meloon dañ ko war a stabiliser ci constitution bi comme ni ñu stabiliser la durée du mandat et le nombre du mandat bi nga xam ni moo tere euh, Macky Sall reporter élection yi parce que bu amul woon clause d'éternité kon day reporter élection yi de mm-hmm. mais 103 moo ko tere mm-hmm. kon euh, loi électorale bi tamit non lañ ko war sécuriser droit de vote xale à partir de 18 ans tamit non la war intangible Ken waru beddi ken ci processus électoral bi ci base bu ken xamul yow nga ñew out carte d'identité rek ñu ne la voter mm-hmm. au nom de quoi mm-hmm. parce que tu es jeune mm-hmm. donc lolu je crois que euh, c'est une bataille à gagner mais pour interprétation résultat yi en résultat taxawu Dakar résultat Khalifa Sall moo ma intéressé ci résultat yi. gën la et ban moo la ci bettul. non bettu ma de. bettu ma. tout ma man newoon naa la fi 2 bu ko amé je te jure j'ai dit 2 pour na mais yéen gëmu len mo won vous en aviez douté. gëmoon nañ la néñ la foko tek nga ne ba booba nga ne woon ba boba wa légui mhm. légui bu amone 2 sax mais parce que dama gis ay premiers chiffres yu bind euh, euh, Khalifa Sall 3,6% moi j'ai trouvé que ça c'était beaucoup. 3,6 c'était au début. xam nga. Mhm. ma ne ko ma Khalifa bu amé 2 pour Il disait que, Idrissa Seck amul Il disait que mooy Idrissa Seck 1 mhm. moins de 1 moins 0 virgule. xamuñu 0 ñaata la mais. Mhm. man néwon na la fi mom c'est un has-been euh, avenir mu ngi ci donc avenir politique mu ngi ci donc euh, Dakar je crois que euh, askanu Sénégal dañ leen wara a delloowaat kàddu gi. pour élection législative ak locale pour que le mu qui ñi nga xam ne dafa yaakaaroon ci ñoom benn taxawaay d'opposition ñu nangu ko. Mm-hmm. duñ ko c'est fini ça. parce que fi on va vers l'enterrement de de l'incarnation du système de tous ces gens là yi nga ces faux opposants yi nga Ils abusent... dañu utiliser dañu abuser. gi euh, euh, du peuple. Mm-hmm. dañu def détournement de suffrage. Mm-hmm. Bamba Fall nga voteel ko parce que opposant là mu jël mandat bi. dem dem rallier. ba noppi di xeex opposition bi détournement de suffrage la. Barthélemy Diaz nga jox ko Dakar parce que force opposant Macky Sall la wane. mu jël mandat bi daal di dem yoonam di la attaqué nan la yow doo jàll premier tour sax et puis élection sax du am muy fecc donc loolu euh, je crois que <laughs> euh, prochaine euh, locale yi le peuple doit doit reprendre ce qu'il avait donné jox ko ñi nga ñoo ko mën a représenter valablement. am na solo mhm. alors euh, sa kàddu gu njëkk Guèye ci résultat yi nga xamante ne doon na ci scrutin bi. bon pour commencer atta yàlla moo gën a gaaw bu nit quoi. Mhm. Mhm. Euh, Pastef yàlla da leen atte ak sénégalais yi. wane nañu lu nëbboon. ñi fidélul woon wan nañ leen. ñi sincère feeñ nañu ñi sincèrewul feeñ nañu. xamnañ ne tamit encore comme niko ko Clédor waxee le peuple est souverain. Mhm. kep ku fi commandé ti wala ngay yor rew mi di nga bàyyi xel askan wi toujours dama nan suñu dirigeant yi nañuy deglu peuple bi. Mhm. peuple du moy ñuy sol costume rek taxaw dakar yor sen auto yi rafet di bu ngon jotté ngeen tok lek seni ganar rek tok lolou du peuple bi de peuple bi moy boy gër yi nga xam ñi ngi feulé ci ñaay bi. Mhm. di ko jaayante. ñi ji jaay café Touba. ni ni ni seen ni ni ni ni ni yor seen ni ni ni ni ni di ci ni di ni du def lu ne mm-hmm. pour a di garder seen dignité ni mm-hmm. ñoy peuple bi mm-hmm. c'est pas parce que sol veste bu rafet rek am nga ni bu rafet am ay relation ak yow ni li ma lay wax rek loola am kooku déglu wala day xool ay intérêt ñi ñi nga ne fal folli Sénégal plus jamais ça dañ dul mayet benn président nga fiy nekk di buur di bumi yor mu mi loo neex nga doxale ko jël say famille say frère say rakk say goro say lépp nga tag leen ci kaw nit ñi. Mm. nit ñi dañuy toog di la seetaan. Mm. carte yi ñoom ñoo ko yor. Mm. la souveraineté appartient au peuple. kenn moomu leen. Mm-hmm. élection ren laa gis ku ñu teg ci pousse pousse ay croix rouge yanu ko. Dakar maire. mu am quatre-vingt-dix ans di kof kofi. bulletin bi sax dañ ko ko doon téyel. di ko faral ñu ne ko ndax xam nga ki naa Mhm. man xamna sama candidat deuk mhm. bi dama bëgg mu saase rek mhm. nank la ko doon wax ci Dakar ben centre de vote maire bobu dafa jooyloo ñep tay doon nañ ko wax tay ci Zik FM non euh euh amna euh, ben chaîne bu mu ko doon déglu sama ngoy déglu sama radio euh, sama auto tay may ñëw maire bi dañ koy wa Croix-Rouge ñoko yanu japp ko pour mu vote ji pour te dire que peuple bi population duñu genn ci l'histoire du Sénégal mosuñu genn def lu melni

non foo làqu Damboj mën na ko accueillir non bu ñëwee met El Hadj Diouf koy bàyyil mu accueillir ko borom amul layam layam dëkk bi dañ ñëwoon hmm. leen am nga waa Pastef dañ ñëw leen ngeen daw si ñëw moo gën ngeen yi xelu di ñëw hmm. am na slogan bu bàyyi saal yoon hmm. parce que bu ñu demee ba ci cappaandago di ngeen xelu di ñëw te da ngeen fekk ñu tëj porte yi ndeysaan léegi nag ñun fu ñuy laaje waa Pastef ci gouvernement bii di ñëw nanu ferme nañu nekk ay nit te xam ne dañu am contrat bu diis bu ñu signante ak askan bi ñi Sénégal ak ñi sekk ci diaspora bi ñu bàyyi xel monde rural bi tey déglu waa banlieue bi surtout parce que Dakar du ay cité yi ay euh, Nord Foire ay Védenberg euh, euh, Almadies Plateau dëgg la Dakar lañu bokk Sénégal la bokk mm-hmm. mais lii dund Dakar métit bi dangay dugg yëmbal benn baraag buun pikin ginnaaw raay caaroy Kër Masaal yëmbal wàcc ba jaksaaw kilomètre 14 yëmbal wàcc euh, jàmm gën dafa am ñaari dëkk yoo xam ne dañ ko war di bàyyi xel te yàlla moo ñu ko jox ñu am ko Sénégal te duñ leen bàyyi xel nga Mermoz <laughs> Mermoz mhm. jàmm gën mhm. ah. ak xaar yàlla. Hmm. waa Pastef ñetti dëkk yi jamaay ngalawaay heureusement Mermoz la dëkk. ak Gorée boole ci Gorée. ak Gorée ak Gorée. Gorée surtout waaw Gorée ci la bokk. parfois dañ koy fàtte nag. waa ñetti dëkk yooyu. ci la bokk de. Hmm. heureusement sunu président ñaari président yi fi njëkk yëpp ay Mermoz lañ dëkk te ñu leen jëlee dañoo meroon ba pare muus. Hmm. Macky Mermoz la dëkk. Mermoz Mousse wala Mermoz. waxuma Mermoz. Mermoz ah ok ci beneen sens bi nga koy. Mermoz mooy tubaab d'accord dañ ne Mermoz. mer muus. mer muus mer ba pare nga muus. nga muus d'accord j'ai compris. xam nga yàlla mënoon nañ jox président bu dëkk Almadi. Hmm. wala keneen ku dëkk Gorée. mais yàlla buy àttee mi de carte gi da koy leeral. Macky mer muus la dëkk. Jomaay dëkk mer muus. Hmm. boo moytu beneen bi ñëw xaar yàlla lay dëkk. <laughs> d'accord mais man dama lay interpeller ci li. parce que c' mhm. des quartiers yo xamantene mhm. boko xolé rek war nga xam ni li defal rew bo mel ni da ngay muus. Mhm. ba pare dëkk gore. di xaar yalla d'accord j'ai compris. est ce xam nga ma. boo xaaree yàlla ba yalla fekk lu fa. ñom ñom dañoo xaar yalla dañu mer ba paré mous ñu japp leen bund xara ñu muus sen mer ñu mer am lu leen naqari ñu dëj leen ñu mous ne pat nek prison di xaar yalla nek prison di xaar yalla deuk xaar yalla chambre chambre xaar yalla ñu génn 10 jours après don président Cheikh Omar Diagne dëkkoon. Mhm. ak Ousmane Sonko numéro boobu tuddatul na ngeen ko tuddee fa fa Ousmane Sonko nekkoon ak ki dootul chambre 10 xaw ma chambre neuf am na nañ ko mhm. tuddee xaar yàlla. Mhm. bo dañ fa tok ba yalla fekk len fa. te gore. ba ñu génnee nak ngelaw goré la ñëk jakkar lool lamb goré di leen signalé. di 10 jours ñu don président. fukki fan ñu don président. génn kaso dugg pale hmm. mu ngi doog a am de. surtout. Hmm. dama ne lii de ku mu dalul doon loolu la dal ba pare ëlbatiku. Hmm. ay nit daan leen wax lu ñaaw ci dëkk bi. Sénégal a ngi ñuy vaar yaa ngi daw ci réseaux sociaux yi. moo tax même bu dee da ngay politique na nga respecté nit ki. nga respecté nit ki. te da fonk dignité nit ki ndax ëllëg kenn xamul nan lay doon. mais man ki la doon xam nga fu sama xel dem. Hmm. benn bés ba ñu barricadé buntu kër Ousmane Sonko. mu hmm. jàkkaarloo force de l'ordre ne leen yéen ak man bés dina ñëw ñu tase si mbedd bi. te du hmm. doon ci circonstance mais mu mel ni loolu dañu dox tuuti mu amaat loolu aussi. non